chers internet yu kenn bëggul tv dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës ci ëtt yëglekaay yi ñu commencé kook vox populi yi mu ubbi xët bu yaatu jagleel ko suñu état bu sénégal gi taxawaaye mag BRTM bi nga xamante ni nii dañoo fas yéene jël suñu matuwaay yépp doxal ko suñu bopp yëglekaay bi ñu xam ne projet BRT bi nguuru sénégal mujjee naa waxtaan ak ñi ñu ko dénkoon ba fi mu toll bépp système technique boo xamante ne di moo na doxal BRT bii fee fukki at na ko a lool dem bég dikk bi ci jamono joo xamante ni nii luy tolloog cent mille voyageurs mën nañ ci dugg par jour banlieue bi ba ci ville bi ñëpp mën cee gis seen bopp li nguurug Sénégal gi namm ci berte bi lépp ngi ci biir yéenekaay bi L'Info yéenekaay ubbi xët ko ouverture neuvième forum mondial bi nga xamante ne nii jamono ji mu ngi am fii ci Dakar yéenekaay bi ñoo xamante ne njiitu réew mi président de la République Macky Sall moo ubbi cérémonie bi ay ni ki démb de alerte la signé fàttaliwaat réewuk àdduna bi yépp ne bi ba ñu bàyyi xel bu baax a baax nag sunu doxalin rawatina ak ndox mi nga xamante ne ni manqué na lool ci àdduna bi moom Macky Sall di xam ne ci biir yéenekaay bi bi wërngal këpp ñoo war a nu ñu jàppalante ngir mën a régler problème ndox mi ci àdduna bi ndax booy xool Sénégal gii moom référence la ci sunu gouvernance gouvernance de la maanaam dañuy bàyyi xel ndox mii ne ñëpp dañ cee war a am accès jàppale nit ñi mën a am ndox rawatina nag bu sell te am qualité Walf Quotidien ubbi xët bu yaatu jagleel ko Barthélémy Dias mi nga xamante ne ni jamono ji moom mooy meeru Dakar bu ñu seetloo fan yi bu teg tànkam moom Barthélémy Dias Macky les jours ubbi xët bi yaatu jagleel ko dossier Ousmane Sonko bi ak Adji Sarr bi dañu xamal ne jamono ji nag juge bi ubbi na salon ba fas yéene déglu képp ku ñuy tudd ci dossier Adji bi dañu xamal ne du moom dong mooy dem kay ndax moom Ndeye Khady mook boroom këram ñooy ànd fas yéene jàkkaarloo juge bi comme ça lépp mën a leer la tribune yéen kaay ne dossier Sweet Beauté kay léegi nag coow li daal jeex ndax tànk yi nga xamante ni juge bi yëkkati gis nga procès bii bu fekkoon na film la bésu tey jii di talaata ci lay premier épisode bi di daw ñeel nag Ndeye Khady ak jëkkëram ñu fas yéene jàkkaarloog juge bi wax ci coogu Adji Sarr bii en tout cas mu ngi xamle ne li wér te wër moo di Ousmane Sonko moom tam boo moytuwul mu ngi wàcc comme ni Ndeye Khady def nii ni ki tey jii dem wuy ji bi moom tamit Ousmane Sonko mu ngi wàcc ngir wuy ji bi te ñëpp nag ñu ngi koy xaar ci alalam la ba ñëpp xam fan la commencé ak fan lay yem yi bi def ci révélation bu rëy te ñu xamal ne Ahmed Aidara de toll nii jël na benn tànkam yóbbu ko ca OFNAC fas yéene déclaré lépp loo xamante ni am amam la ndax lii defi la ci woon te mujjee na ko relevé source aané defi kay fa mu nekk dëgg moo di ca mairie bu Parcelles Assainies yéenekaay bi dañoo xamal ne équipe municipale bu bees ba nga xamante ni moo ngi woon ca biir mairie ba dañ ko sàcc sàcc lii moo tax boobu ba léegi si am nay adjoint maire yoo xamante ni mënuñoo dugg ca biir mairie ba ndax seeni bureau boo fa demee karo kase nga fay fekk amul siège amul ordinateur matériel yépp yóbbu nañu ko réew mi quotidien deste diwaanu Parcelles Assainies li ñu nettali mbir bu doy waar bu fa am yéeni bi dañu xamante benn xale bu jigéen daal boo xamante ni mën nañ jàpp ne wérul ci mbedd mi lay fanaan suba ngoon guddeeg bëccëg moom ko ci benn néeg lu tolloog ñetti semaine laa la wax di tëdd ak moom la tolloog trois semaines def ko esclave sexuel am di tëdd ak moom suba ngoon guddeeg bëccëg yéen kaay bi dañu xamal ne fi toll nii nigérien boobu nag jàpp nañu ko yóbbu nañ ko ci kaso bii en attendant nag ñu daal di continuer enquête bi <laughs> fii la bët yem nag man duma ci débat ba suba ak jàmm incha allah en tout cas ñu ngi leen di fàttali le 3 avril 2022 kenn bugul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy moo kenn tox na ni bu ko kenn tardé na ñëpp waaj le 3 avril 2022 kenn bugul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy man maam Khalifa maa nga ca kon nag ñu yendoog jàmm ba suba ak jàmm incha allah yéen ñi doon jooy fan geen di jëlee ay produits yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy léegi nag seeni rongoñ mën na fer jot ci produit yu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy yomb na lool ndaxte adresse am mu ngi ci poste Thiaro yi arrêt tableau Tivaouane neex jot lool képp ku bëgg am ci produit yi nga xamante ne nii moom la leen kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy jagleel gaawal gaaw woote au 77 502 15 63 wala 76 378 17 ak kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy seen jeex na ci fàttali nag consultation prestation yi kenn bëggul bu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy ngi koy def talaata àllarba alxamis ak beer gaaw gi nag te mooy dimanche muy bésu sàkk pexe su dee yow mi nga xamante ne nii da nga am cas d'urgence bu mënutoo toog di xaar gaawal gaaw woote au 77 030 48 40 kon nag mbokk yi kenn bëggul bu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy yombalal na leen yoon wi ngeen di jaar ngir mën a jot ci produit am yii yaa ngu ko képp ku ci wootee da nga jot ci ndaw yi kenn bëggul bu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha yi ñu daal lay tegtal ba nga mën a accès ci bërëb bii jot ci produit yi faj sa tawat bu dee rendez-vous privé yi kenn bëggul bu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy jox na leen ñaari bés di altine bu jot ak àllarba bu jot bu ñetti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu maanaam 15 heures jàpp 17 heures kenn bëggul bu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy daal moo gaaw ci tawat yi gaaw ci poche yi kon nag jaaraamaa kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy